di leen ziar yéen ñii ci Evran ñu war ñëwoon ci benn vidéo wàcc saa yamaan bi nga xam ne mooy nekk fële ca Bayern Munich ah, mën nañu wan ne mi dund ay problème yu métti métti nekk fa ñoom ñëpp rek ñooy Roy Sané ñu mën a wax guddi ci maam lay bi jox tàkk ndax bëgg fubal te xam ne guddi bàyyi na problème yi mu nekk fekkoon fekk nañ ñu ko daan teg mu ne ci forme dëgg-dëgg bàyyi na du nekk ay problème

um at war a di année blanche um at bu war a di année blanche xëy na ren mën na année mana mën na année blanche ak ak Bayern Munich waaye nag euh, mën na année blanche mën na bañ a année ndax bu Dortmund dóoree day ñàkk Kubi bi xëy na nag trophée muy super coupe bu Allemagne mais dafa waroon jël trophée bi gën am solo muy Bundesliga ba moom Sadio Mané waaye xam dal daal Bayern Munich moom sax dana fa quitté ndax guddi yi moo ñu ko taatu doy te xolum neexul kon bu jógee fi moo ne gën mooy ne gën ci bu fa te tamit li nga xam mooy euh, football mën na fa jaar yàqu mental mën a fa jaar yàqu ba du am ci li mu bëgg ci football et ñuy suivre sport amoon leen ngeen partage ngeen xayma suñu numéro ak suñu yeneen vidéo merci beaucoup am ngeen jaajëf bu baax a baax.